masaa ñaama suñu borom am ay soxna yu am caprice bu kii di jooy fee kii di di muy ñaari côté ba nga xamante ni ñu ngi waaj a jooy bu ko defee ma taf leen sama dënn nax leen bu ko defee nag may jaar su kon bi di dagg di dagg xolu sën bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Sene. Hmm. Ah. Ah, eh, waaw waaw sëñ Sene. waaw tawal la lan la. nga coone waaw damaa dégg da ngaa rek ma ne bala maa segg café geek ak jaay yooyu ma ñëw bokk ci yëf yi balaa gën a guddi. ah da ngaa jot convocation. déedéet man jotuma ma xeex ak kenn fan yii de. dama laa bëgg wax ni réunion bi bokkoo ci. bokk ah, bokkuma ci. Ah, ah, eh, eh eh bul fontoon nañu sa kanam gi ni mel robinet bu tëj. ñëwal toog nii. dinaa toog ak samay soxna nga naan ay ñoom <laughs> kaay nii te dem redémarrer sa làmmiñ nit ñi ba ni wax foo bi. lenn dinaa ko xamal day jaay pàtti ñu ne dinañ xam ne xolal maa leen gën a nekk wog a dañuy bandi bandi lu nañ xam ne maa leen gën a nekk wog a père lan la Sofia ñun daan nooy la jël jël lëmbal ku mën fenn moo ma gis ah dinaa la vocal capta lan ak yow laa wax naan gis nga yow bu def def loo bu ma dugale fii dinaa la jëkk a sukki ba nga yaakaar nekk si film ban booba nokki dama lay nokk ba nga day ma nokk day eh! la gita yow boo boo sansee del xool météo oh, del lire météo sa lii bari na trop ngay mel ne kenkaayri ni xumb nga trop comme ab ah. gis bi pontu a turwel général dama nuru ak kenkaayri alimentation nga may jox. xanaa amoo nga root ci ndox ba mu fees jox ko sa noon muy naan di nelaw di nelaw di wax su yeewoo nga yëkkati ba ca kaw teg ko ci suuf toog ca kaw te naan koo bàyyi ma noonu yow bàyyi ma yow non sonal nga lan la rek sa jabar bay bajantu na ko ne baax te kenn dégg moom la gileem lekk moom la ñay lekk moom la ñoombar lekk moom la lëg lekk qu'est-ce qui se passe ici lan la as mooy eh, sa jabar boo ko laalee man laal la nga naan sama soxna wayu eh, eh, les bu dee da ngaa ñam sa tubay yi affaire homosexuel yi bul ma ko wax wayu affaire homosexuel yi bul ma ko wax jógal fii laaloo nga naan man maa laalan tu wayu bul ma waxat affaire homosexuel merde koy wax merde merde merde koy wax merde merde merde merde merde merde wayu xawsu waay yow certificat ku la dóor nga feebar nga bëgg. ñu jox la xam nga dem général inda xaw si maa tey maa tey wax général